كفى مدن اليم من الليل بالله زياقي صلاة من الموت كفى مدن اليم القرآن الكريم ak ci xaside yi Serigne Touba yi yàlla na ko sama borom ful def koy xéewal ak i ngëneel wacce ko ci kaw serigne Galas ak mbollem julit mu fa nek kum fa fek ak ko fek ci barke serigne Touba bala ñoo wax na ku ci nek ci yeen def fatia fukki fukki ak ko salatu ala nabi ñu yéene ko serigne bi ko defé ñu soga galé borom jotale ci yool bi ci barke serigne Touba ñi rafetlu mboolem kàddu yi fi jub ci ni bi ngeen xëyee ak léegi ndax kàddu yi fi jub mu yu ñu wuute ak yi ñu ci fekk lépp lu baax la ndax dara génn ci alxuraan dara génn ci xasida yi Serigne Touba yi dara génn ci waa kër Serigne Touba bu ñu nee waa kër Serigne nag tarix yëpp dañuy dugg daal dañuy daal di dugg ci biir ndax noonu la doon doxe moom sëriñ Touba kon moo tax bu ñu nee waa kër Serigne mboolem fu way meuna soso rek te ab julli yaa ci biir sër yaangi ci biir keur Serigne Touba kon ñi ngi santar yalla bu baax baax ci jotay bi ko sunu borom melene ni mu mel ndax li waral sante gi moy ay ndaw yu tollu fi ngeen tollu am katan am pas-pas am bëgg-bëgg am yene, seeni xel ak seeni xol mënonu jëm fenen waye sunu borom dimbali len katan len ba seen yitte lepp di lu bax lolé ñing ci santat sunu borom bu baaxa baaxa baax tay tey ñaan lolé yalla na sax dak ndax li de fu nu mëna dem dem ñoo dem fu nu dàqal li nu fekk fi ndax amuñu lu dul alxuraan amuñu lu dul sëriñ tubaa amuñu lu dul xasiday sëriñ tubaa yi amuñu luddul dul serigne touba yi lañ fa fekk kon fu nu mëna dem it buñ fa fekkul lu melni it mënuñ fa fekkul ëpp kon sant bu ngeen sant jëmi ci ñun ñoo ngi leen di sant lu ko gën a kawee jëme ci yéen li ci am mbégte lool fii nag xanaa kàdduy sant ak soññee lañ fi lañ fi yëkkati waaye li fi amoon njariñ moom wax ngeen ko ndax sëriñ bi bàyyiwul dara ci xasidaam yi te bi bi ñu ñëwee ba léegi ci loolu rek lañ leen fekk kon li ci matoon a ñaan ñaan ngeen ko sëriñ bi ñaan na ko ci biir xasida yi ngeen yëkkati ko li ci waroon li ci li waroon li ñu waroon a wax it sëriñ bi wax na ko ci xasida yi ngeen yëkkati kon nag yàlla na ñu am ak dégg ak topp ñi ngi ñaanal sëriñ Galas ibnu sëriñ Modou sa Dieng yàlla na ko sunu boroom yokk ay leer yokk ko yërmande ca barsàq ak mboolem jullit ci barkeb sëriñ Touba ndax fii kat saa bu nu fi toogee sunu xel ci moom rek lay dem balaa dem ci lenn sunu xel ci moom lay dem ndax yàgg nañ fee ñëw ci ndigalam saa bu ñu fi masaan ñëw rek ci ndigalam la saa bu ñu fi masaan jógee it buñ ñëwee ni ko fi lañ jógee da ciy am mbégte lool kon mbégte mooma yàlla nañ ci sama borom doxi ba bégal nu ci barkeb Serigne Touba ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu di saafante ñoom te di leen jot lii nuyoo njabootuk sëriñ Fallou gépp la ko commencé ci Serigne Abdou Salaam ba ci ka ci gën tànk ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen xamal ne kër gi soppi ko amu ci lu yes amu ci ni ko serigne bi yore won non rek lañu topé ci ginaaw serigne abdou salam mu yore ko noonu ñu topé noonu ci ginnaawam ànd ko lepp nak ak yeen di leen xamal lool rek lañ leen waxon yoon wañ fu yoon wiñ fu jige ci koor gi dal mom rek lañ wax nak dara du ci genn waxi serigne bi ndax serigne bi ay waxam wul won waye nak lu mas wax njariñ la te ay waxam it daawut génn ñaar muy nango jaamu yalla ak nango liggéey te dundum nit ki it mënta gudd gudd gudd ba njariñ lu ëpp li am ca ndax ku jaamut yàlla boo demee da nga ko rëccu ku liggéeyut it da nga soxla mu tëw faju kon dundum nit ki lu mu gudd gudd gudd ñaar yi rek la lu mu gàtt gàtt it ñaar yi rek la Serigne Touba diiru bu fi nekk loolu la daan digle ba niñ ko noppee gis ci zahir ay doomam yi fi newoon loolu lañ daan leen digal ko di ko digal ñi fi nekkoon ak ñoom ba ci señ galas mi ñu mujj a gis loolu lañu daan digal kon nag rik nañ sax ci ndigal yooya ndax kat ku ne mën ngaa fexe ba nax sa morom waaye nax sun borom moom kenn mënu ko kenn mënta nax sa bopp ndax kum neex wax leneen lu la neex waaye nag boo wéetee la cay dëgg da nga ko xam la ci dul dëgg ko xam kon nag bu nax sun bopp bu ñuy bu ñuy waxit rek ne ay murit lañu ak murit kenn du ko wax des koy jëf ndax jumaa ji ay wax tabaxu masaliku jinanul barki dembu gi man murit la teggu ko fe mu nek ay jëf yu wor moko def ne mu def dekk bi ngeen nek ba tay sunu borom dimbali len ba ngeen meuna tok fi di yekati khassida ay wax defu defu texu taxu mu agsi fi seen jëfi wajur yu bax yi jëfi sunu serign yu bax yi moo tax ba mu agsi fii kon nak ndeem ñun ño tollu ñun fañu tollon nañu xamne bu ëllëgé dañ koy ay yeneen ndaw ño fi nek ñom nak def nañ lañu warona def ndax jaarale nañ ñu ci siratal mustaqim yar ñu ci teete ñu ci nampatal ñu ci kon ñoom wàccoo nañ ak ñun ñun nak ñun ñoo ci des ak bu nak da nañ wàccoo ak suñu njabot kon nañ guna gur-gur bu baaxa a baax baax defaraat yar bi ñi tollu ci jang dem jang ñu tollu ci liggéey dem liggéey buñ ko defee manam yu baree bari xew léegi sun borom danañu ci musul te moytu am riirandoo moytu am fo moytu foo xam ne boo fa demee seytaane mën na laa man ñu moytu ko njuumte nag mën naa bañ a mën naa mën naa bañ a ñàkk ci dundum nit ki nit kuy dund ba faat te deful njuumte yombut waaye nag fépp foo xam ne jàpp nga ne boo fa demee njuumte mën na la faa dabe nga bañ faa dem ndax ab tànkkat fu mu dem ñaare fu <coughs> fu neex borom lay doon kon nag fu ñu teg suñ tànk yi nañ ko xool lu ñuy xool ci suñ bët yi nañ ko xam ndax képp ku kenn képp ci ñu kenn ku nekk ci ñun ñi kat boo liggéey sunu borom dana wéet ak yow ba nga jàpp ni mennum yow dongu la ma sa bind bis boobu nag bis bu mata a bàyyi xel la yoor ci am pax dindi ràccital ya jël suuf teg ci sa kaw ñëpp won la ginaaw nga war faa des ak sa jëf ak sa jëf ku koy xalaat léegi lu bare bari danga ko moytu te doo saar ci kenn ndax saa bu ñu xëyee rek ku ci nekk rek saa boo rek danil la tàggi nit daanaka léegi dem na ba ni faatu defoon nit ñi ci ak tiit ci ak dellu ci yàlla xëy na du ñàkk am na ñu koy def waaye ko na loolu nag bari gi moo ko waral waaye nag du tee sun borom mi fi newoon moom moo fi ne biñ fi nekkee nit moo fi nekk ànd ak ñun bu ëllëgee ba kenn ni ko fii moom mooy di fi nekk kon nag nanu ko jaamu ndax kat jaamu ma moo mu bind leen indi leen fi moom wàccoon ak ñun serigne touba mi fi newon nit musta wote ay tiaxan musta wote am fo musta wote folklore musta wote dar lu genn yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba lu genn sun borom subhanahu wa ta'ala kon nak ñun ñi nga xamne serigne touba ni mbubbo mbubbo nak moy lo xamne mom ngay nuru nuru comme ñun serigne touba amul ludul serigne touba nañ fexé ba suñ dara bu mu genn serigne touba té serigne touba dara gennu daram gennu diiné serigne touba lu bax rek la doon wote ak njub rek la doon wote jaar leen ci siratal mustaqim rek la doon wote kon yàlla na nu sama borom mi nga xam ne tëlewu dara jaare la ca yoon woowa mag ñi gën a yar njaboot gi ndaw ñi gën a jox cër mag ñi buñ ko defee sama borom mi am yërmaane dana yërëm dana nu dimbali ndax foofu la bëgg nu jaarale foofu la bëgg nu jaar ndax kat moom tëlewul dara bu ko neexoon nim nu binde mënoon nañuy wàcce kenn par kenn du jaarale kenn ci kenn te du ko wañi dara du den du temu am am rub sunu borom bi mu am mom sunu borom subhanahu wa taala waaye ñu bëgguñu yërëmante ñu wegante bëgg ñu joxante ay ciir motax mu wutal nu ay waajur wutal nu ay mbokk kii mu boole ko fi kii mu boole ko fi ndem mënu ñoo a and nak nañu and ci dëgg nañu and ci juk nañu and ci l'islam li serigne muntaha di wax ne baax son bon son kon nanu baax ngir noppal sunu bopp ndax aduna mom ku ku momon li fi nek lepp ku amul liñ fi bëgg lepp du la tee tit du la tee jax du la nak jaxlé du la tee amul nakar comme nak dañ nuy may rek lun am nan ko doylo te nango jaamu yalla nango wekk sunu ay kilifa nango leen sutural te nango top ci ñom te wañi wax ji wañi ciowli wañi yi nga xamni ne amul njariñ du mané wañi sax waaye nan ko ba ndax lepp lu amul njariñ ku ne xam lu amul nit ki nak lu ko lu ndariñ lu ne amul lu ko ndariñ nanu xol li nu mënta ñak te muy Serigne Touba ñu dox jëm ci buñ ko défé bu ëllëgé bu nu ak mom ndam képp lu cey jëlé waye buñ ko defutit bu ëllëgé bu nu taseeg moom gàcce rek lañu am yalla nu yalla musal ci ak Serigne Touba nak di am gatch té la koy waral ku ne xamnako kon yalla nu sama borom defal ak dégg ak top ñi ngi ñaan nak ci kàttanu yalla ci barké Serigne Touba yàlla nañu dooni murit sadikh yalla nu doon ay nit ñu dëggu ñu jub ñuy jubal barkib Serigne Touba ñi ngi santaat waa dëkk bi yëpp di leen wax ne fanu nekkoon démb ak ñoom foofa lañ fas yéene nekk ba yow yawmi din suñ waajur wi ñu fi yabaloon rëccuwuñ la taxoon mu yabal ñu fi la taxoon mu yabal ñu fi it xamuñ ko woon bam ñu fi yabal waaye am na luñ ci commencé xam kon nag ñi ngi ñaan sunu borom yéen ji ñu fi am ñu mottali ko te ànd ko ak yéen di sàkku it ngeen ñaanal njabootu sëriñ bi la ko dalee ci sëñ abdou salam ni mako ko won ba ca gëj a gën tout tuut tot tànk ngeen mboole leen ñaanal ndax li ngeen fi jang ci xasida day lu ngeen ñaan sun borom man nako koo nangu ngeen ngeen mboole ñaanal njaboot gi yéen yi sëriñ bi amoon ñu man ko mottali te ànd koo mboolem taalibe yi ndax kenn ku nekk ci ñun sa yitté ak sa yéene ak sa pas-pas moy kër gi jëm ci kanam taalibe yi andando mbolo doon ben ma di leen waxet ni ngeen xamne ñun njaboot gi ñi may woowee njaboot gi réeroo wuñ umpalante wuñ amuñu xàjj amuñu seen koo ci xam ne sëñ xaadim nga ne mooy sab sëriñ nanga jox sëñ Abdou Salaam respect boo joxut sañ xaadim ku ci ne sëñ jiili mooy sama sëriñ na nga jox sañ xaadim respect boo joxut sañ jiili loolu nag li ma ci jublu yéen bu ngeen xëy na mën naa am xamu leen ko xamagu leen ko waaye dangeen ko xam li ma ci jublu rek mooy ngeen bañ a am benn réeroo ngeen bañ am ben xajlo ngeen bañ am ben fete ndax señ bi daan wax ne nga tak sa mum jël mom señ galas ku la gis xamne sa sama talib nga nga dindi ko te ku la gis ku la gis xamne talib señ sëñ nga momako gënal te ñun loolu ci loolu lañu yar kon ñoon ñoo ngi leen di gëna denk loolu te am nañ ci yaakaar bu baaxa baaxa baax ñi ngi ñaan yalla na suñu lepp tambalé ci señ bi te yam ci señ Tuubaa di ñaan li ngeen fi def tay yalla na ko suñu borom def ay xéewal soti ko ci dëkk bi nawet bi di yeex dara yéexut ci sunu borom yalla nako def muy nawet yi gën te barkel te lepp lu ngeen ci am ngeen murlo ko te jariñoo ko ci barke Serigne Touba ñi ngi ñaan kep ku fi teewit ajo joma mën a nako sunu borom safara ndax lepp lu jafe lu ne rek yomb na sunu borom te yombalal nako it Serigne Touba kon yalla na sunu borom fat sunu yaajo ci barke Serigne Touba ñu andi liggéey Serigne Touba bi ba ca kanam a kanam ci barke Cheikhul Khadim Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñu ngi sant mbooloo mi Mboki ak wa dekk bi yëpp mbokki soxna yi nga xam ne ñom ño wara agali ngi leen di ñom itam batali ab nuyo ak cant ndax serigne bi yag na leen baye xel lool and nañ fi ay yoon yoon yoon am yuñ ko ay ñaan lo bañ koy ñaan lo fi am ndox dox ko xaaliss bañ ko jox keroog ñoo gis nañ ko nit ku bim nak lu man bim fi nekké ñukoy gis bim fi nekkatul ñun biñ ko gisatul ci la ko gëna man ñun loolu wër nañu kon yalla ñun sunu borom kàttanul ñom soxna yoyu barki Serigne Touba ba ñu fekke ñun njaboot gi ci barki Cheikhul Khadim ñu ngi sant magi dekk bi di sant suñu mbokki tijaan yi di sant mbollem ko xamne ne rek yaa ci tundu wi ñu ngi lay nuyu di la sant alaykum wa rahmatullah jeri ngeen defati si jëf la misalum juma ji sëriñ bi tuddu ak misaalum masaaliku jinan di nek ndakaaru ak lepp lu massa sosu rek ci yoonu murit ay wax taxawuluko te lol ay kaddom la mustajuk diñu ko musta dañ di ko wax kon mbokki talibey kaddu yi sëriñ bi wax muy melni kaddu yu yo xamantene ni yu ñi bamtu la nañ ko bayyi xel xamne ne mbir mu mën doon ci yoonu murit mo xam ñaat dërëm la xam moko sos waye ak pas-pas bu boo xam te ne nii kenn ku ne ci ñun war na koo amee waruñoo xaar ba tey ñuy am pas-pas pas dañ koy dëkkaale maanaam day nekk ci ñun du bis bii lii day wane rek lu mbooloo dajalee di ko def waaye buñ wéetee maanaam loolu foofa la pas-pas di feeñee kon kaddu yi mu wax ndénkaan la kon nañ ci góor góorlu bu baax a baax a baax a baax ba yéene ji ci sëriñ bi am mu gis ko loolu ñoo ngi koy fàttaliwaat mbokki taalibe yépp Sering bi nak sant nañ la bu baakha baakha baakha baax di len saar bu baax di jiital nuyoo bi serigne khadim mbàkke mi xamne sa ñu gesso gis ko mu nek ci ndigal lo xamne li lu serigne fallu la serigne fallu momi en ko yalla doli leer yan na tassi tas en ko yalla doli yërmande ak njëggal ah suñ xel gën dal bu baax yal na la fi yàlla yàggal dëgëral cër yi yoral la bu baax a baax a baax a baax ndax kat yaa ngi gunge daa mel nag weetuñu nag yaa ngi gunge ah fa sëñ ba waxoon doon la yebal fii daal alhamdulilah rek la lañu wax jaalana allahu min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu dañu ñaan rek yàlla boole ñi nga xam ne bu ñu déggee wax rek topp la ca gën a rafet ñoo ngi lay santaa bu baax a baax di sant mbokk talibé sa kaddu matna na na lol ndax man nañ ci wax ñaari ponk yo xamni kat yu deugere deugere lo xamni ne képp ku ci taxaw man naa ne da nga am ndam ci l'islam waye da nga ndam ci aduna itam ndax aduna ak al-akhirah wala ñoo ànd yent sala yalla subhanahu wa taala dafa xamni ne waqul imalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun wax nga ci sa biir kàddu jëf mooy li am solo waxi kese kese kese sot lu dara pas-pas nag mi nga ànd ak jëf sa pas-pas ñoo ngi koy natt ci sa jëf sa jëf ju rafet sa jëf ju jëm ci sëñ bi lu baax rek lu ñu taxamu ci tey ak ëllëg moo waral sëñ bi di ñu digal li nga xam ne kàddoom yi kàddooy waajuramo wa sëñ fàllu loolu rek la ñu doon digal jëf ca la bokk waaye itam ak uh, am imaan am imaan mooy am lislaam ndaxte ñaaree ñoo ànd lisla am lislaam waaye ngay am jëf bu baax a baax a baax kon daal uh, noonu ñu ko waxee ne jëf mënut ñàkk